Mbengue Mbor diggante caatu bawol caatu bawol ngemboo ngembu lu weex ngemboo ngembu lu ñuul li caatu bawol jàppante ñu ngi tàmmante baaraam waa lii lan la dóorante nañu xëy eh, eh, caatu bawol Mbengue ah, ñu ngi sa ñu ngi xeex nag bagaar attention bagaar Bakar waaw waaw caatu bawol daan na méng mbooro waaw caatu bawol daan na méng mbooro noonu la ko daanee jël bu set ak Lac Rose Lac Rose a ngi fëgg dënn euh, ngemb li oh wàcc na exe eh, na attention remise Lac Rose na moytu remise gan gi jaw na ko jël ñu attention door nañ ko hypercule oh ah Lac Rose nañ ko hypercule moom it mu ngi fayu jëlaat na def nañ ko daan ko daan ko xoolali booy bi indi Deux Giga numéro 2 Xeeru Ngor Deux Giga numéro 2 Xeeru Ngor Deux Giga moo won ginnaaw Xeeru Ngor moo leen ah léegi nag Deux Giga won càmmoñ Xeeru Ngor moo leen féete ndeyjoor oh Xeeru Ngor Xeeru Ngor Xeeru Ngor numéro Deux Giga jël na ko jël na ko oh. mboot daan na ak baay Mandione Junior Baye Mandione Junior sànni na léegi moo ñu ginnaaw Baye Mandione Junior kàngam la ñu jàkkaarlool kàngam ah Baye Junior jël na wala daan ko ko oh nañ ko Baba Ndione buddi na ko bañ na génn na ñu koy taaf daan nañ ko oh oh quel combat. Kalmundur Maxi Crazy oh door na ko da koy door mu daanu waaw Kalmundur lu mu daan ni Kalmu Ndour lan la def nii laa ilaha illallah da ko dóor mu daanu waaw ñu ngi ak maam Less coach su Parcelles Mbooloo ma maa ngi siyaar euh, maa ngi dollu siyaar di nuyu waa Equivox alors nga ñu jëm ci affiche bu doy waar muy diggante dafa leer ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Fils de Balla noo ko xam nga combat boo koy tëkka-tëkka da ngay xool jaar-jaaru nit ñi kenn ku ne am na loo ma ne Tapha Leer day cokkaas sa góos kee dafa mën a jongale donc Tapha Leer bu ko indil safara indil ko saytaane bu ko Fils de jàppee bu ko jongalee combat bi jeex déggoo ma de. mais est-ce jongale Tapha Leer dana yomb. non xam nga ñoom ñaar ñëpp ay géant lañ ñoo xaw a tolloo dayoo Fils xaw ko ëpp tuuti volume donc bu ko jongalee mu jóg. waaw ba tànk bi jóg jël na tase nañu xamoon na ah jël na ko Fils de Balla Tapha Leer mu koy jongle jongle jongle ah attention njaax njaax wala attention